waa gis nga fii loo diisal mu diis loo oyofal mu oyof Ndeye Ndiaye yàgg naa ko siibu di ko seetaan bëgg ko moom ak Diop Fall ñoom rek laa daan wettalikoo yaa ngi dégg tey ku ma ne woon dinaa dem ba bokk ak moom di jouer ma weddi ko moo tax ma naan yàlla mën na lu ne ndax tey ba mu méttee ma yor sama tablette moom ak Diop Fall ma daan sulaay ba tey yàlla def moo tax yàlla lu mu def du hasard woo ma téléphone jël ay millions yu bari teg ko ci sama loxo dama damaa bëgg ma ñëw mu yaatal ma nekk nit bu baax nit ku gën barki Seydina Mohamed te tey bu ma ko woowee bu ko neexoon mënoon naa bañ a ñëw ndax bu ñëwoon nit du ma ko mere parce que damay xam ne li millions yi jox na ma ko pare te liggéey nañ te li ci def bu ñu paree contrat bi daf may jox sama xaalis te bu boobaa dara du am waaye nit bu baax la parce que kees dafa sori. dañuy gis ñi nga xam wala nga am bu ay millions man ay millions yu bari laa génne damaa tukki deux pays dem damaa dem euh, Siin jóge fa dem Dubaay fu ma dem damaa liggéey dama damaa jënd bagage chargé sama conteneur ñëw ba ma ñëwee kenn gisuma ma wane benn bagage la dama koy jaay te tey mënoon naa damay jaay ba pare doog a doog a doog a doog a eggali sama Kazu Rajab waaye tey damaa génne ay millions def ko Kazu Rajab amul kuy taxaw ci réew mi doog borom daraja ne maam Ndiaye maa ne ci ginnaaw wala maa ko joxe millions naa ko ma waay jox dama kaa beral table bu boppam bu lu ma ci neex def ko ku ma ci mën a may ba may la xaalis ci kasaraga ñu ñaar ku bu bu ko bu ko répété waatal suba it ma génn ay millions def ko ci kasaraga a xam nga Sénégal dafa nakkaree wax soo waxee nit ñi duñ la gëm bàyyi laay sëy di fii laay waxee ay sëtam léegi lañ ma fekk ci salon bi ma nekkoon man nit ku baax laa ndax bi ma bàyyi laay bàyyi laay ma njëkk feeñu ko sëñ Fall xadi laay sëtu baay laay Seydi la jur boobu moom moo ñëw jël si ma station tali bu mag yóbbu ma seen kër kambu euh, bi ma demee ñu ñaanal ma defal ma ay tëpp tëpp baay laay Seydi la a ma nar njaay sa sama yére def si ndox lu ne ay sëtam laay wax ndax internet laay wax ay kër waa këram xadi laay ñëw jël si ma ma sama digganteeg ñi dafa yàgg sëñ Fallu gént naa ko moom ak baay laay Seydi beneen bi parce que kii la ma feeñu nuñ koy waxatee weeru koor laylatul xadar la ma sëñ Fallou feeñu sëñ Fallou weeru koor bi ma ñi ñëpp fekk nañ bi ma am na ñoo xam ne gëm nañ ko ñoo xam ne gëm waaye teguñu ci weer te mayu may million ndax bi may feeñ fekk na ma fu méttee méttee méttee ma toog mu ba pare julli du weeru koor naafle ba pare mu feeñu sëñ Fallou loolu duma ci wax ndax xam nga tax duma ci wax wax dafa xóot te Sénégal déggin dafa metti te da wax li ñu jël say wax yóbbu ko sëñ Fall ndaxam feeñu na ma feeñu ma man xam naa yàlla xam na yonent xam na te samay mbokk xam nañ ndax bi ma feeñoo feeñu ma ba ma ca jugee na ma ndax kenn newut sama ginnaaw man sëñ benn yoon la ma feeñ waaye dama koy gént lu baree bari te damay wax ak moom damay aalu ba pare jàkkaarloog sëñ Fall doo xam nga lu may waxee ak moom damaa gën ni sëñ Fall sama wet ndax nit koo xam ne heure boo noddee mu fajal la say aajo jërëjëf maam. waaw man mu ba ngi nii yëpp ba tey lu ne la fi indi lu ne la naan fay doom comme may wax sénégalais yëpp ñu dégg ko man ak moom millions yi boolewuñu internet boolewuñu bi ñuy ànd yoru dërëm yoru dërëm dañ daan ànd guddi ak bëccëg suba ak ngoon yorul dërëm yoruma dërëm weer bi ma yàlla taalee weer boobu la ko yàlla taale kon lii du hasard maa ngi moom mën na noo rayante de mën na boole moo tax man nit ku baax laa man lu may wax nekk sama xol damaa mën a toon sama marketing la damaa mën a wax sama marketing la waaye sama xol bi daraay iñaan nekk daraay iñaan nekk te yàlla du seet koo xam ne dafa iñaan bi la teral ak Sëriñ Fall yàlla du ànd ak borom xol bu bon man tas rajo bu ma ci tollee bu ma gis bu ma dégg Serigne Touba ba damay tax ni man fu ma xulloo wala damay yaakaar ni man mën naa jubóo yow day mel ni dañ may dégg kii war nga ko wax kii war nga wax ak man sëñ Fall rek laa yaakaar. maam xale yi toog sa ginnaaw ah naa di jaare ñoom ñëpp samay employé lañ ñi fi nekk ñëpp samay employé su nekkee samay xarit bari wu ko sant ñëpp di leen gërëm di leen ñaanal yéen ñëpp journaliste yi ngeen di liggéey yàlla ko suñ Fall teg la yàlla doon ay télé yàlla bu seen yaakaar wax dëgg yàlla jël Serigne Fallou Mbacké ndax nit ñu baax ngeen ndax tey lu xew ci réew mi rek yéen a koy génn lu métti ci réew mi yéen a ko génn bu nit amee bànneex ngeen bokk ko moom bu amee naqarit ngeen bokk ko moom waaye dañ leen di ñaanal. aw ma seen jot aw ma jot politicien man fayit laa xam. teel xey xëy wacc wàcc réew mi nak ñoko mo dina fi ñaan jamm ak salaam te ñaal na fi jamm sax président ban magi de ni la ko xamé ni ngeen ko xamé bañ na ko ba sax du dé man sëpp ma moom sax ay wax du rétan waay mbooloo bi ga dajé bu nga dajale bi waaw yow man du politique politique xam nga du ma seq ak critiqué ñu xool leen critiqué waat romb leen